toppuñu ko parce que dafa am mbooloo. Mm. moom. Mm. toppuñu ko trois ans. Mm. dañuy xool nit ñi nga xam dañoo nekk Thiès. am dugg-dugg jege président looloo waroon nit ñëw nekk ci site bi am fa. nañu ah Habib te ngeen dem seet Habib parce que mook président jubóo nañ bi loolu moo ñu yóbboon foofu ñun seet nañ fi ku nekk seet nañ ko ku nekk ku nekk seet nañ ko pour affaire bi pour affaire bi sotti. mais ba ñu xamee ne ñoom ñëpp amul kenn ku ñu mën a yóbbu ci président ci lañ ci lañ defaree suñuy pancarte. Sadio Ngane ak monsieur maire Talla. monsieur le maire non moom laa lay wax ni xam nga yow bëggoo parce que man damaa damaa toog ci plateau. non mais je pose une question monsieur le maire Talla Sylla non il est brave. non waxuma loolu daje non man gis nga man bu may wax si moom foog ma foog ma mais question dama ne la est-ce ndax seeti ngeen ko. seeti nañ ko moom mooy suñu maire. mooy suñu maire ville. te moom yii lay sawar a taxaw yii. yii yii maanaam askan bi. kuy sonal askan bi non non kuy sonal askan bi. kuy sonal askan bi. lay bañ a gis. est-ce que dem nañ ci moom toog ak moom waxtaan ak eh, moom. Jéeme Jéeme nga may euh, kii pour ñu avancé un peu dans le débat beneen affaire bu am importance tamit ut naa statistique gu waa Descos pour seen sit bi Mbour 4 alors euh, pour le nombre de sommations servies. deux cent cinquante huit sommation joxe nañ ko fa sommation d'arrêt de travaux nee nañ deux cent trente neuf lañ leen jox sommation de démolition yaa mm-hmm. naa yu dix neuf mm-hmm. personnes yi nga xam ni woo nañ leen ñu mës a wuyu si quatre cent soixante dix la ñu personnes yu indi document bi ñu leen woowee mm-hmm. ils étaient trente sept personne yi arrêté bi ñu leen ko euh, waxee 32 la ñu asafurlaa yi ñu arrêté téye jàpp pour violation de sommation maanaam ñu ne leen bàyyi leen ñu bañ 32 bon ce sont des statistiques disponibles auprès de la DESCOS. DER te nee nañ tamit da ngeen tegoon système boo xam ne bu mën tabax di dem. DER DER da ngeen am ay guetteurs. DER xam nga DESCOS kañ la ñëw. ah, ah daf leen naan rek c'est pour qu'on avance aussi te mun comprendre lu tax ñu toj. pour ñu avancer dañu nekk ci télé bi nañ wax mu leer. lu tax ñu toj. non dama ne DESCOS. Mm-hmm. bi mu fay ñëw bi commission bi taxawee bi commission bi taxawee te boo gisee lu tax DESCOS ñëw. parce que préfet bi dane comme que dañuy président neen dañ leen a may hmm. dañuy defar te yéen pour ñu pour ñu defar leen foog foog mu am kenn koo xam ne dina dina monter sentinelle di tere gars yi le maire Alioune Sow maire hmm. Thiès Ouest hmm. mu ne mu ne préfet léegi damaa bëgg loolu nga bàyyil ma ko nga détaché ma ñaari policier ak am naa am naa am naa mairie ay ay ay ay ay ay proximité ñu dem fa am ñu nekkoon ci bi non non non non non non non mun a mais préfet jékki-jékki non on va appeler woo Descos. loolu moo indi Descos ci site bi. ok est ngi dégg. mais sommation yooyu dem leen ngeen def enquête keneen ku dul foofu. ñoom li ñuy wax joxe nañ ko. maanaam dañuy bind ci miir yi. Mm. arrêt Descos arrêt Descos arrêt Descos. Mm-hmm. mais joxuñu kenn mais à mais sommation. Mm. oui oui man man j'ai problème. Ah, xam nga problème cest à dañuy wax Descos. comme nekkul autorité xam nga je li ma constaté moo gën a grave mooy que on prend le président de la république. Mhm. teg ko ci benn camp on prend les institutions teg leen ci beneen camp ñu jàkkaarloo j'ai l'impression que ay adversaire ngeen di waxal bu ñu waxantee dëgg DSCOS mais c'est la gendarmerie non mais c'est l'autorité c'est l'État le président de la république c'est le l'État moom mooy incarner État li ma bëgg a comprendre moom mooy mooy buur aayul waaye dak yaa aay et on parle de ay institutions yoo xam ne ñoom ñoo war a préserver mhm. sécurité nit ñi yéen a ngi dégg ay léegi ñu ngi wax kees benn kii bu ñu doon kii mu daanu ci kaw nit mhm. mais nan waxante dëgg ban dëkk la ñu nekk c'est-à-dire ngeen ñëw toog ci benn plateau télé jël ay institutions bu na parlez pas de privé bu lii ngeen di wax ni yëpp argent di contribuable moo leen di fay salaire ñu am na ñoo xam ne dañuy waat ne dañuy def seen liggéey nu mu waree ñu war a ñëw taxaw def seen liggéey yéen ngeen jël président de la république teg ko na le jël ñi presque tam neen ay dëmm ñooy ñu bon ñi léegi bu ñu seetee kii mu wax ak ñu bon ñi hmm. mais te président bi moo leen jiite ñoom ñëpp bu leen jaxase askan bi ak nit ñi problème bu amee injustice bu amee man xam nga lan laay yaakaar nit ñëw ne taj taj nañu sama kër illégalement booy blâmer nga blâmer état Sénégal mais nga laqatu ci politique ah c'est pas honnête bu dee dëgg ngeen bëgg dégg ce n'est pas honnête parce que li ngeen fi wax nii loo leen wër wër wëri koñ amul benn politicien booy seeti ngeen nekk deux mille cinq cent famille xaw ma mille cinq cent famille te du ci capitaliser kon ma xam ne c'est pas un bon politicien da nga foog ni day récupérer ñooñu ñëpp pour après ne leen dem leen fu leen neex Habib mii nga xam ne fu ne ma nga fa non dugg ne dëggante la dëgg la ñuy waxante c'est-à-dire que entre le président de la République et les institutions bu fekkee du benn say ngeen wax ma ko bi euh, yëpp. ba pare ba pare xaaral wax euh, euh, man seen dossier bi ma gisuma ci injustice gisuma ko ci ndax injustice mooy <coughs> nguur gi ñëw def loo xam ni méngoowul ak yoon descos bu nekk loon Sénégal Sénégal tas parce que Sénégal dama yàlla baal de maa ngi jégalu ci li wax mais peuple bu indiscipliné lañu c'est-à-dire ñun ni ñu jàppe ni li ñu jàppe mbedd mi parce que boo déggee ñu ne mbedd mbuur la boo déggee ñu ne mbedd mbuur la mooy mbedd bu la bu kenn moomul loolu mooy suñu culture ñun pour ñoom lu buur moom rek kenn moomu ko alors que li buur moom mooy li ñëpp bokk li ñuy woowee buur mooy li ñëpp bokk donc des ko seen role mooy loolu euh, boo jëwee ci sol bi nga occupé ko te amoo droit des ko mooy liggéey loolu hmm. te désordre bii je veux dire bu ñu amuloon service bu mel ni descos désordre dina gën a grave parce que descos li ñuy def ci réew mi bari na maintenant nag li fi nekk mooy hmm? yéen pour man da ngeen a forcer seen argumentation hmm. yéen benn rek ngeen benn argument rek ngeen am hmm. ci droit mooy ce qu'on appelle la mise en valeur maanaam yéen ñëw ngeen def ci seen ñaq ñëw ngeen ci terrain bi ngeen def ci seen ñaq def ci seen xaalis nuñ ko wax sax us et soin xaw nuñ koy wax voilà maanaam def ngeen ci seen xaalis ak yooyu ngeen yem foofu mais ngir yàlla boo bëggee sa communication efficace yow dama la koy wax ci sa intérêt bàyyi laxas jaañ ay politiciens ay politique non dama ne parce que boo waxee loolu da yàq parce que ñi leen di ñeewante ak ñi bëgg a dugg seen combat fépp lañ far xam nga lim la am na ñoo xam ne noonu nañ Macky Sall façon noonu boo xam ne loolu la yéene yéene yéene boo taxee ni jokk defal nga Macky Sall mille signature sa combat seen yoon nekkatu ci mhm. donc sa communication baaxul tu comprends benn argument ngeen am mooy yéen a ngi ci site bi toog ngeen fa def nga fa seen alal possession yi lañ koy woowee ci droit maanaam foo xam ne ni def nga fa sa alal def nga fa sa ñàq am na nu muy demee nga jot ci tu am na nu muy demee nga jot ci donc jaar leen foofu ngeen ngeen ngeen ngeen jaaree ko noonu et puis kii réglé seen problème do parce que président de la dafa am ñaari jëm yu ci nekk ngeen xam ko dafa am président APR ak président de la république kii réglé seen problème du président APR. président de la république la parce que ñaari yëf yu wuute la. politique bi dafa nekk nii mais moom ci sañ-sañu président de la république am mën na jël décret pour déclassifier forêt sa mën na loolu moom. forêt boo xam ne dañ koy classé mu déclassifier ko pour joxe ko. donc yéen président de la république moo leen intéressé mais pas le responsable politique. voilà Jéeme may mayal Pape Djibril bisimilah mu nu mu nuyoo ci waxtaan wi s'il non man kay der dama bala may tàmbali dama am question may laaj Habib. Habib <laughs> ah, Habib Niang waaw ah. ah, tey moom ñangeen bi moom franchement tey du ma ko may dara <laughs> mais est-ce que est-ce que y avait un décret de de déclassification en cours. waaw c'est-à-dire que a y a un décret en cours c'est en cours. tu sais ñoom seen seule arme. kenn ku ñu yaakaar si représentant public. affaire bi du question politique. ñoom bu ñu ñëw si man dama lay laaj rek. est-ce qu'il y avait euh, un en cours ah. laisse-moi continuer décret va bientôt sortir dans les jours à venir. d'accord merci. léegi mooy excuse-moi ma continuer nga baal ma rek deux ah. minutes. Euh, xam nga ñoom tey ils ont fait pratiquement ils ont parti voir n'importe qui. Hmm. bu ñu ñëw si man ñëwuñu si man en tant peut-être un homme du président wala dara ils sont venus pour ñaan kenn ku xam ne rek moo mën a régler sa problème mooy le président de la République parce que mm. le décret c'est celui moom moom rek moo am habilité mm. def décret bi moo tax bi ñëw si ñoom président de wax na donc actuellement nii d'après information yi moo am sax on m'a même dit décret finalement signé nañ ko c'est pour ça que le préfet de euh, de de de, de la commune. léegi léegi Habib ñu recenser toutes les gens. Habib qui... Euh, kon léegi toutes les autorités administratives locales yi nekk Thiès yëpp. nekk impliqué woon directement ci dossier bi yëguñu woon ne y un décret en cours. que amuñu woon information que ne signé nañ ko. ba pare est-ce que toutes les autorités administratives et locales yi nekk tamit directement ou indirectement impliquées ci dossier bi ñoom parolu président de la république bi mu waxee woon foofu. Mhm. ne jël naa engagement ne dinañ ko déclassifier loolu tamit ñoom par la parole du président n'a n'a aucun aucun aucune signification pour ñoom. donc xam nga la début. waaw léegi léegi Abdoulaye pour mm-hmm. pour man. waaw déjà je pense que c'est vrai en dehors de de sensibilité que euh, te kenn mënu ci dindi sensibilité. Mm-hmm. kenn mënu ci dindi yëfu doomu aadama. Mm-hmm. Euh, parce que quel que soit alpha. man dama considérer ne ñoom ay victime lañ Habib mii tamit li ko indi ci dossier bi sax pour man victime laa ko jàppe parce que chef de service xam-xamam màcc ci wàllu woowu xëy na bokk na tamit ci laxo li taxoon ñu privilégié ko bokk na tamit ci li tax mu teew ci dossier bi ci ci plateau bi ndax li doon xaar ci moom mooy rigoureusement mu indi les faits de façon chronologique mbir yi fi mu jógee les faits rien que les faits nga xamante ni à partir des faits ñun dinañ mën a def une appréciation donc moo tax ma ne foog ñu boole ci yëfi doomu aadama parce que de plus en plus de plus en plus Sénégal dañuy dañuy bañ ku am yëg-yëgu passion hmm. te passion mënta ñàkk àdduna bi li fi bokk bëri na lu bari lu fi yëngu passion rek a ko yëngal su doon ci raison rek lañ ko teg kon du ñu kii de plus en plus dañuy bañ sensibilité soo waxee sensibilité ñu ne non da nga populiste da nga démagogue foog sensibilité yokk ci dañoo gis ay kilifa yu taxaw ay jigéen ay góor di jooy am na ci ñoo xamante ni xamuñu fu ñuy jaar ba am suuf muy sama classe gi parce que mësuñu am un lopin de terre loolu mooy laa réalité au Sénégal xamuñu nu ñu def ba am suuf am na si ñu bëri ñoo xamante ni bay dëkk moo mën a tax ñu am mhm. suuf boo demee Mbour am na quartier bu tudd bay dëkk kii wax na ko fi mu nekk nii fàkk dëkk la. donc dafa am nu sunu société évoluer mais réew mi ñu nekk aussi mooy réew moo xamante ni à partir de 1959 la autorité yi fi nekkoon créé woon office des habitations à loyer modéré OHLM mhm. dans les années 90 ñu soppi ko tudde ko société nationale des habitations à loyer modéré pour dire tout simplement que dafa amoon une nécessité impérieuse boo xamante ni information yi sunu nguur yi amoon sunu état yi xamoon nañ ne am na ci ñoo xamante ni pour ñu am un toit décent il faut que état jàpp ci mooy logement social et un logement social c'est forcément un logement subventionné il faut que quelqu'un paye derrière te kooku mooy ki nga xamante ni moo tax ñiy jóge Mbour Thiès dem ba Palais muy insu muy l'État donc jàpp naa ne dans cette affaire la parce que contexte dafa am solo boo xoolee froid bi amoon le en février 1954 en France froid bi doy waar am ku ñu génne benn soxna mu téye papier d'expulsion sedd bi rey ko xaaju guddi Abbé Pierre daal di def benn appel le fameux appel de Abbé Pierre le premier er février 1954 bu doon jamono yi xam naa dañ naan ko tuye populiste wala tuye démagogue daal di yëkkati kàddoom jël rajo bi dal di wax ne am na benn dàmm bu génn léegi këram fekk nañ ko mu faatu moo ngi yor ci loxoom papier d'expulsion loolu indi benn déclic bu doy waar ci àdduna bi avec la fondation Emmaüs ba nga xamante ni tey ci réewu tubaab yu bari nation développée yu bari même jamonoy sedd ki la loué amul droit génne la génne la mhm. parce que dañu am sens bu ñu jox la dignité humaine contexte dafa am solo li tax ma ramené ko fii mais contexte bi ñu ne contexte Covid la tëdd mhm. contexte bi ñu ne contexte couvre-feu la tëddu par extraordinaire Thiès est concerné par le couvre-feu par extraordinaire on autorise ñuy détruire ay kër où est la dignité humaine quelle est l'image que nous voulons renvoyer à nos enfants aux plus petits ne leen quel type de république vous avez donc ay question yu bari lay poser ak ñàkk sensibilité bi am xam na damay xool image ba ci yàgg ma ne jëmm ji du toj j'espère que ngoon du ñibbi këram. du dem fanaan këram sanguwaat. ak ka ko jox ordre. man pour man c'est criminel ce qui s'est passé. balaa ñu yegg beneen niveau parce que ñii dëkkuñu fa bërki démb 99 lañ wax ne lañ fa dëkk. mu wóor leen ne am na un décret en cours de déclassification mais remembrons nañu dem benn remembrer rek daal di remembrer li nga xamante ni moom la ñu fa def d'autant plus que Habib Niang nee na du lépp moo nekkoon ci forêt classée bi. dafa am lu empiété ci forêt classée bi am na ci ñoo xamante ni nekkuñu ci forêt classée bi mhm. donc il y avait une dynamique boo xam dañ ko waroon a suivre daal di koy protéger maintenant d'ailleurs et mhm. je pense que c'est un exercice qui doit avoir lieu et je comprends pourquoi aussi bien Doudou Ndoye que Moustapha Souran mhm. ont eu des difficultés par rapport à la réforme foncière allons-y dans un ñu def audit ci fii ñuy wax yëpp na dañ koy déclassifier ñu def audit ba xool ñan ñoo fa ëppale les quartiers lotissés yi nii ci jamonoy euh, de 2000 à 2012 jamonoy président Wade. Mhm. nañu xool quartier yu bees yi ñu lotissé yëpp ñan ñoo fa ëppale. nañu nañu def cet exercice là. Mhm. pour la gouvernance et et et et, et la transparence mhm. kon loxo dina dem gémmiñ te tibb du ko yóbbu. ay scandale sur scandale la ñuy te li ci gën a métti mooy ñii nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw partout au Sénégal tey jii lañu ñu may informer Kolda. ne ma village bi ñu yóbbu woon les lépreux mhm. fi mu ne nii administration moo ngi koy bëgg a jëli alors que dañ leen waxoon ne leen fii yéen yéen a fay nekk mhm. ñoom it ñoo ngi ci désarroi bu doy waar donc à un moment donné pour man il faut que ñu def ay choix yu très simple mooy que dans notre façon de gouverner yërmande fan la ci toll te lan la ñu mën a def te du yàq li nga xamante ni moom moo ñu boole wala sax lay day defar mais sëriñ bi nan nga mën a comprendre ñu ñëw toj këru jàmbur mu fanaan ci biti ak ay gone ñu toj ay kilifa yoo xamante ni yow xam nga état dafa amoon obligation sax dans tous les pays du monde di accompagner mooy li ñu wax logement social mais yow ñii yu ñu dara état dañoo dajale seen i dërëm ak ñaari dërëm ak ñun ñëpp xam nañ kër ni mu difficile sëñ bi pour am ko pour am terrain rek c'est c'est la croix et la bannière pour tabax c'est autre chose ñu tabax seen kër ba mu jekk sans état dimbali leen mm-hmm. sans état d'hymne moo tax ma ne ñoom dama leen considérer comme victime parce que xam nañ ne boo politigul fii pour nga am dara day jafe. waaye ñii tamit mais ñi mais Habib Niang aussi dama jàpp ne. non non may leen ko mu chuter. Eh, eh, oui may leen ko mu may leen ko mu daaneel. et puis on prend le téléphone. non wuy ma wuy ma wuy ma may leen ko mu daaneel et puis ñu dem téléphone. Talla Sylla tamit bu dee mi. Talla Sylla ñu ngi lay woo jëloo sa téléphone. Euh, il était prévu mu. waaw léegi léegi leneen li ma bëggoon daaneele. Ah. mooy aussi bien Descos comme IGE tey dama war a dama jàpp ne dañu war a nekk beaucoup plus dans la prévention. Mm-hmm. mooy li ñuy wax ci Covid bi rek préventif moo gën curatif. Mm-hmm. mooy nan la ñuy def tey jii ba nga xamante ni Descos dina bàyyi définitivement mm-hmm. di toj. fexe ba duñu toj. wala ñu fexe tamit ba ku ku war a sàcc. Mhm. ñu xam ne kii jël na yoonu sàcc. Mhm. bala moo sàcc ñu téye loxo. allez euh, ci téléphone bi dama war am taala la bu dee am na ku ko jege nañ ko ne mu ngi